ñëpp di ziyaare ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di yooyu rek buñ ko mënee jeexal tey ñu jeexal ko suñ ko mënta jeexal it ñu bàyyi ba ajjuma bii di ñëw incha allah muy soratu nuur bi ñu jëloon gàmmu gee doxoon ci diggante bi ak yi ñu waxoon ci Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali karamallahu wajha te ridwanullahi alayhim ajmain oustaz Sidi Ahmed waroon ko waxtaan moo taxoon ñu taxawandi woon ci tafsir bi waaye ñu fas yéene wéy tey kon ñu dalee ci fi suñ borom di waxee ni wallaahu buur yàlla yaalamu moo xam wa antum yéen ñii laa taalamuuna xamu leen dara wallaahu buur yàlla yaalamu moo xam li baax ak li bon ci yéen wa antum yéen doomu aadama yeeg mbindeef yépp laa taalamuuna xamu leen li baax ak li bon ci yéen moo tax wallaahu laa bu doon toolut fadlullaahi ngeneelug yàlla aleykum ci yéen bu leen gënale wa rahmatuhu ak yërmandeem wa anna allaha naka buur yàlla raufun ku ñewenti jaamam yi la raximun ku leen yërëm la yàlla ku am ñewenti ci jaam yi la ku am yërmande ci jaam yi la ñewent bokkul ak yërmande rauf mooy ñewent ñewent mooy koo xam ni xam nga li koy lor yaa ngi koy tere waaye mu ngi jëm mu ngi jëñu jëm ca te soo sañoon du jëñu mukk jëm ca léeg sax nga def yi pexe ba du ca jëm loolay ñëwent yërmande nag moom day làmb lépp ñëwante daal ci gàttal mooy ci gàttal mooy koo xam ne bëggoo sax mu tibb tibb bu tàng sex ko mu di ko lakk ci gémmiñam boo sañoon da koy régulariser ba mu yem bu ko saxee du tàng du sedd loolooy loolooy ñëwent kon gisoo doom ak ndeyam buñ koy door jàngal lekk di ko defaral pomme de terre du sedd du tàng léeg ndey ji daf koy toj ba noppi di ko ëf pour bañ mu lakk ko loolu yëpp ci xeeti ñëwent la moo tax yàlla nag ñaar yëpp la boole ci ñun raouf ku ñu ñëwent la waaye rahimun ku ñu yërëm la yërmande moo gën a yaatu nag ndax yërmande nit ki day def musibaam ba noppi nag musiba wu rëy nga mënoon ko duma baal ko loolu mooy yërmande wala nga mënoon koo xañ li muy dundee te du tee lim lay mooy moy nga jox ko ko loolu mooy yërmande yàlla day yegg ci ba ci ki lay dëkke di def lu bon nga xam ko ba noppi yow di ko defal lu baax noonu la yàlla dëkkeek ñun nag ndax bër bu set ñu ngi koy tooñ duma yelloon ci ñun mu di ñu baal mu ne alladina naka gaa ñi nga xam ne amanu ñoo gëm yaa ayuha yaa ayuha alladina yéen gaa ñi nga xam ni amanu yéen a gëm laa déet tatabiu bu leen topp de xutuwaati cheytaan ñellu cheytaane yi mooy yoonam yu sew yooyu le wa man képp koo xam ne yettabiu topp na xutuwaati seytaan ñellu seytaane yooyu muy yoonam yu sew yooyu muy jox nit ñi pour ñu jaar ca pour tarxiis fa innahu liy mbir tey mbir moom waa joojule dafay digle bil fahshaa ci kàccoor ak kàccoor rek ak def lu bon wal munkari ak lu ñu sib seytaane du santaane lu baax mukk lu bon rek gëmu la bu ko topp mënu la fayul gëmu la ndey ak bàyyi bu ko jox yooyu rek lay ëf ci sa xol di la pompe di la pompe nag ba nga xëy def musiba yoo xam ne danaan weng rëccu rek moo cay topp nag waaw moo tax yàlla ne pochetam yu sew yooyu nag bu leen ko ci topp moom seytaane yi dafa am ay poche yu sew boo ci jaaree rek moo lay yóbbu ci yu mag yi nag moo tuddee ko ay ñel la ñel mooy yoon yu tuuti yooyu sàmm yee ko xam waaw mu ne nag moom du digle lu baax mukk lu bon rek lay digle fahshaay mooy ak kàccoor lu bon wal munkari ak lu sip mooy lu génn sharia cigarette garaawul tuxal sàngara guuxal rek garaawul nga guux bay naa ni butéel nag yu du jeex waaye garaawul mosal benn meko rek nga muqi benn yoon ñaari yoon commencé jënd paket yooyu noonu lay tàmbalee ak yow yooyu mooy ñel la day tàmbaleek yow fu tuuti waaye mujjantal ga rek mooy lu rëy la moo tax yàlla tegaat ci ne walaw laa doonte woon nekkuloon fadlullahi ngeenelug yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem maa kon dey déet zakaa du sell minkum ci yéen ahadan kenn suñ borom nee na bu fekkuloon ne maa leen yërëm ànd ak yërmandeeg njëggal ak ngëneel bu dox sama diggante gi yéen ngëneel li mooy la yàlla waxoon rek wala xad karam naa bani aadama ngëneel loolu bu dutoon ak moom suñ boroom nee na kenn ci ñun du mën a sell moo tax mu ne walaw laa doonte nag doonte nekkuloon fadlullahi ngëneelug yàlla aleykum ci yéen wa ak yërmandeem ma kon boog booba day zakaadu sell minkum kenn min ahadin tukkee ci kenn ci yéen nag abadan faw walakin li fi nekk kañ allahu buur yàlla yu zakki mooy setal ànd ak di sellal man képp koo xam ne yashaa moo ko soob kon yàlla nañ ci bokk mu soob ñu mu soob yàlla muy setal ñu wallaahu buur yàlla samiun mooy aji ndégg yépp alimun mooy xamaakoon bu mag bi lu waaye di jëf rek yàlla xam na ko li ngay xalaat sax yàlla xam na ko li nga xalaatagut sax yàlla xam na te xalaat moo gën a gaaw waxuma sax li ngay xalaat waaye la nga xalaatagut sax yàlla xam na ko mu ne wala yaatali bu di géñ ulil fadli ñi nga xam ne dañoo am ay ngëneel yu kowe mooy ñu am koom yi zumali ni borom alali minkum ci yéen wasaati ak ñi nga xam ne dañoo yaatal wërsëg ci ñoom an yutu ba buñ joxati ulil xurbee ñi leen gën a jege wal masaakiini ak miskiini wal muhaajiriina ak ñi gàddaay ànd ak yonent bi salaay sallam fii sabilillahi ngir yoonu yàlla rek waaw boo bu la yàlla dënkee koom nga tane say mbokk loolu la yàlla di wax ne bu bu leen xañ mu ne rawati nag ngay billaahi duma la ci may waaw xam na ñun ñëpp dégg nañ ko barki rasulullaay doo ci mos yàlla ne jaru ko say jege ñaale ñi lañ tane nga leen dimbale leen yaa leen tane ci wërsëg dimbale leen yaa leen xel dimbale leen day continuer nag yaa leen tane ci njàng dimbale leen yaa leen tane ci commerce bi wan leen yoon wi waaye nag di yegg bay ngéñ naan duma la dimbale ay nag sénégalais neexute dimbale de la hawla wala quwwata illa billah léegi lañ may nettali rek ci ngoon wala réew ma jege nee na fi mu nekk di liggéey nee am na benn waaye boo xam ne moo fa indi woon ay jerbaatam ndeysaan jàngal leen métier ba mu mën bañ mën ñooñu nag léegi am nañ tuuti as wërsëg ndax ku ne ngi yor otoom di dawal waaye góor ga yàlla nattu ko xaw naa magee léegi nee na fa lay toog ci garage bi ñoom ñu jënd seen yàpp di lekk de ñoom ñi mu jàngaloon mecc jënd seen yàpp lekk ba mu jeex duñ ne góor gi sax mos ci loolu moom Sénégal doo nga ko ñeme ëpp na da dem ba dootoo bëgg a defal nit yiw loolu la yàlla di junj mu ne waaye nag yi ñu lay def du tee nga jéem yiw rek yow ulul xurba mooy ñi la jege waaw ci deret ci gaño dem ba ca dëkkandoo dëkkaale yee ñoom ñëpp ci lañ bokk ulul xurba wal masaakin mooy ki nga xam ne rek miskin la amul lum lekk amul añ amul reer amul ndékki yaakaaru ko fen kookoy miskin faqir mooy ki am te lim am doyu ko am na añ waaye amut reer am na reer waaye am du yaakaarut ndékki am na añ waaye añ ba sax doyut kooku mooy faqir miskin nag mooy ki amul daara dara dara moom amut añ amut reer amut ndékki yaakaaru ko fen wal muhajirin mooy ñi gàddaayoon ànd ak yonent bi waaye ba léegi day am naka lay amee moo di koo xam ne génn nga sa kër rek tumaranke na mën ngay tukki tukki farata nag lañ wax tukki boo xam ne mooy yàlla nekku ca yaa ngi ci jihaad muhaajir nga jóge nga sa kër di dem foofu mën nañ la tafu mën nañ la sàcc yëpp mën naa am ci saa si ngay tumaranke ñooñu na yàlla wax ne boo leen yëgee wala ngeen gis leen wala ngeen dajeek ñoom na ngeen leen dimbale bañ génn ci xat-xat yooyu wal muhaajiriina mu ne ak ñi gàddaay mu ne fii sabilillaahi wal muhaajiriina ak ñi gàddaay fii sabilillaahi ngir jëm ci yoonu yàlla hmm? bu noonu fi sabilillahi bi laa gisut bi ah waaw kañ ko indi ci suuf mu ne wal muhaajirina ak ñiy gàddaay fi sabilillahi jëm ci yoonu yàlla mu ne wal yaafu nañuy jéllale wal yaafu nañuy jéggale wal yasfaxu nañuy jéllale wal yaa afu na jéggale al afu foofu la jóge ah? suñ borom ne boo jéggalee ba noppit wal yasfaxu dee leen jéllale dee leen jéllale ah dee leen jéllale foofu dinaa ci ñëw léegi dinaa ci taxaw ki ma doon tudd léegi DG Miltelec Jarga Sow moo doon woote bi ma doon wax ne dugal na loxoom ci liggéey bi donte liggéey bi euh, ñi ma ko jox ñoo xaw a yéex. mu ne wal yaafu na ñuy jéggale gis nga fi ñu toll rek ak fi ma jarga wooye gis nga ni mu gis nga ni mu ni ne wal ñuy jéggale wal yasfaxu na ndax. tuhibbuuna bëgg leen an be yaxfira mu jéggal allahu yàlla lakum ñeel gis nga gis nga ni mu tombee moom as ne wal yaafu ah. tegal ko xam fukki nit wax safara di nga am ci yoon loo xam ni jaratul sax ngay jaamu yàlla seetal loolu ndax ku la wax safaan rek borom bi nangu yiwam jox la wax na safaan boromam bi nangu yiwam jox la boo amee junni noonu rek dootul soxla sax nga jaamu jeex na bu yeboo ñu tëj kaamil bi sëriñ sëriñ Cheikh tëj na ko wax nga dëgg sëriñ Cheikh lu ne wax na ko. Moustapha mu ne am na ñoo xam ne seen kañaan yëpp mooy sama teraanga yi ma jox sama jaam yi la ñu mënul a boo bëggee yàlla yëkkati la la ngay gën a yëkkati laa ilaha illallah ah waaw lii de bu ma ko waxoon ñu ne dama ko falsifié waaye bu njëkk bi sëriñ Cheikh a ko wax bi ci topp doomam Serigne Moustapha mu bari xam-xam mi gisuma ku ko raw ci réew mi waaw Serigne Moustapha mustarshidina wal mustarshidaat sama nijaay sama xarit ku ko fi raw gisuma ko fi de ku ko fi ëpp fitit gisuma ko fi fi gën a organiser gisuma ko waaw ah. Serigne Moustapha responsable moral moustarchidina wal moustarchidat gisuma ku ko fi gën a bari xam-xam ku ko fi raw gisuma ko ku ko fi gën a dëddu gisuma ko ku ko fi ëpp ngor gisuma ko ku ko fi ëpp diine gisuma ko ku ko fi ëpp mbooloo gisuma ko ku ko fi gën a organise gisuma ko benn bi moo ko wax beneen bi way juróom a ko wax suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum waaw te mooy dëgg mu ne bu la fukki nit di di di wax safaan rek ba la neexee jaaxaan bañatee jaamu yàlla boo amee junni noonu nag moom jaratul sax ngay julli ma yegg ca waaw waxin la nag waaw waaye bu la neexee sax yem ci ñeenti rakka yi rek dum naa fi la waaw ndax dañuy jël seen yiw jox la waaw surtout nag koo xam ne boo ko laajoon mu ne diw def bi bi sëñ Moustapha wax moo gën a garaaw koo jotee lul dara mu noonu la dara dara koo jotee lul dara koo xam ne lekkoo alalam sequ leen dara mm-hmm. au contraire lu dul teraanga sax seq seq ngeen ko mm-hmm. waaye yow lay bañ a gis mm-hmm. ah yàlla bindee noonu waaw yàlla bindee noonu mënoo ci dara waaw wala yaafu maa xew. nen te ma Chérif yëgu ci dara te gis nga Chérif a ngi nii di tafsirul Quran wallaay ndeysaan ah. <laughs> neel dolli sutura neel dolli sutura ah yéen di a ma seede yéen ngi nii gis maa ngi tafsirul Qur'an ñu ngi may may net man ah, loo ci mën waaw ah. ah loolu kañ moom maa ci xam dara mhm. démb bu ma taxawee ci station ba ca buntu bopp lax ca Pom Noiro mm. rëccu naa ko wallaay Sidi Maxtaar te dafa mujj ak sëñ Souleymane Samb ni xam rek di ma xool waaw rëccu naa ko mujj gi dama naan sëñ bi bul taxaw demal Aliou Ba bi ma àndaloon laaj ko Aliou Gaye laaj ko kenn yàlla dolli sutura waaw aéroport yi àddina bi amoon fu may taxaw loolu damay nëbbu aéroport yëpp nag laa wax Charles de Gaulle fu mu mën doon Allemagne ak fu mu mën a doon bu mën a du ma am jàmm waaw loolu la dogal man maa ko sabab sababu ma ko wala yaafu yàlla nee na doo leen jéggale ah, de tombe waral ay gaaf nag yàlla nee te te dem na sax abu aj bi may indi daf ma ne ndax da ngay tafsir tey ma ne ko déedéet tey duñ tafsir dañuy def kii rek ba yàgg ma ne comme tudd na ko naa ko def bu ko tudd loon rek tey tafsir du am waaye comme tudd na ko rek ma ne naa ko def te moom mi ko wax kat ñibbi na bu yàgg waaw ah fii neex naa taxaw ne wala yaa fu suñ borom ne dee leen jéggale wal doo leen jéllale xam nga luy jéllale mooy feneti nga dégg ko la saaga léegi nga bàyyi mu jàll te dégg nga ko sax dégg nga ko yàlla ne nga jéllale wax boobu wal yasfaxu doo leen jéllale alaa dama ne yàllaay wax de alaa waawee lay firi alaa dama ne alaa waawee tuhibbuna ndax bëggu leen an be yaxfira mu jéggal allahu buur yàlla lakum ñeel leen ñu ne ko ankañ mu ne kon jéggale leen jéllale leen ku bëgg yàlla jéggal la da jéggale ku bëgg yàlla jéllale say mbir jéllaleen mbiri jaam yi ñu ne ko lu tax mu ne wallahu buur yàlla xafuurun mooy jéggalaa bu mag bi raxiimun mooy yërëmaa bu mag bi mooy aji yërmande ji moom ci yàlla ci boppam xam nga nun mel nga ñëw fekk nit toog comme président de la république Macky Sall mu toog nga tëgg ko pes tër garde yi ne kër kër kër kër këpp mu ne non xam nga bu nee nii rek ñëpp taxaw mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko du ko laaj sax lu laaju ko sax lu tax nga pes ma mu génnee benn kayit su ndaw xam nga sañ na ko bind joxal leen ma ko cent million xam ngeen ne am na ko voilà joxal leen ma ko cent million ministre du transport dem boo boo demee nga joxal ma ko benn 4x4 bu jar vingt millions yow ministre de l'urbanisme mu ne ah, mu ne boo demee nga joxal ma ko kër guy jar cent millions te na ngeen ko exécuter immédiatement li ma wax def leen ko léegi léegi daar daar danañ ko def wala duñ ko def xam nañ ne président am na ko am na kàttan gi mën na ko mu def ko loolu la ñu yàlla loolu la ñuy jëflanteeg yàlla ñun mbër bu set mooy yàlla goo gis pes yàlla la loolu rek lay jàngale mooy yàlla goo gis rek pes yàlla la mooy yàlla goo gis rek dafa mel ni danga fekk yàlla mu toog rek nga tëgg ko pes buur bu tol noonu nag nga tëgg ko pes ba noppi mu baal la yemu ca mu jox la àjjana <laughs> loolu rek laay jàngale ah. te lu waroon ci yow xañ la ngelaw li tucc tuccal la lu ne bu la bàyyi bu la président bàyyi woon a garde yi rek danañ la jëf-jëf joo xam ne ba ba ngay dee dootoo pes wala déet waaye tere na ñëpp teral la yàlla nit da koy moy ba noppi mu jéggal la yemu ca mu jox la teraanga teraanga ëpp na àjjana wala teraanga ëpp la àjjana amul benn teraanga bu ci kaw suuf bu ëpp àjjana te yàlla wax léegi ci sa aaya bu ñu romb ne su ma leen toppoon kenn ci yéen du sell ku sellut doo dugg àjjana kon kañ àjjana kenn amul njëgam àjjana kenn amul njëgam yërmande yàlla rek gis nga moo tax toujours nga dégg mu ne walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatu yërmande rek yërmande yàlla rek moo fa xaj yërmande yàlla tax nit dugg fa nit mënta liggéeyal yàlla lu tax mu dugg àjjana moo tax nag yàlla ne soo bëggee nag ma defal la teraanga dangay yor sama jikko yoral sama jikko yàlla dafa am ñetti téeméeri jikko ak juróom-benn fukk nee na ku ci am benn rek dem àjjana ñetti téeméeri jikko ak juróom-benn fukk mu ne ku ci am benn rek dem àjjana jikkoom yooyu nag xam nga lu tax boo ci amee benn mooy xëcc yi ci des waaw jikkoom yooyu nag daf ci bokk jéggale daf ca bokk yërmande walaw yuaxidu llahu naasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min daaba walakin yuaxiruhum ila ajalin musamman yàlla ne su doon ku def ma def la jeex ngeen loolu lay firikat ku def ma def la mu ne benn daaba kuy dukkat desatut ci kaw suuf mu ne li fi nekk kañ dama leen di xaare ilaa ajalin ba ci dig boo xam ne musamman tudd naa ko mooy ñaar nga tuub ma baal la wala yowmal xiyaam ñëw ma duma la wala ma baal la mooy ajalin musamman ñaar yooyu rek lay firi benn nga tuub ci diggante bi balaa bàmmeel mu baal la wala wa illaa nga duggaaleeg moom bàmmeel ba xiyaama taxaw mu seet da lay baal wala ndax da lay duma jeex na mooy ilaa ajalin musamman mu ne waaye suma ma doon def man yàlla ku def ma def la jeex ngeen ndax ku defut amul ah kenn rek laa dégg ko moo waxuma ne keneen amul de waxuma ko de waaye wali yi dafa am ñuy osé wax am ñoo xam ne ñemewuñ ko bu ñuy wax ñu raq seen dikk te fekk sax am na lañ bëgg wax am na lañuy wax am na waaye sañuñ koo wax ñemewuñ ko wax ku toll ma sëñ Babacar nag dafa am sañ-sañ ñemee wax am sañ-sañu wax dafa am ci awliyaa yi sëñ Babacar si yàlla daf ko dox sañ-sañu wax mu ñemee wax te lu wax am na moom rek laa déggagum mu ne man Babacar mosuma mooy sama borom mosuma mooy sama morom mosuma mooy yàlla ci biir mosuma mooy yàlla ci biti mosuma mooy yàlla ci xam mosuma ñu mooy yàlla ci ñàkk xam mu ne xel sax mosuma ci mooy yàlla loolu bari ah waxuma ne kenn du ko wax ne waaye ku ko wax ci jamono bii ñu rëq sa ndigg Ah, sëñ Babacar si moo ko wax kon nag ñaari sëtam bi lekk doomam bi wax wax bi xam nga ni ñi yegg nañ ci yàlla waaw muy sëriñ Moustapha ak sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si Al kon nag yàlla ne dee leen jéggale tey jéllale ndax bu ngeen bëggee yàlla jéggal leen jéggale leen bu ngeen bëggee mu jéllale seeni mbir jéllale leen wallaahu bul yàlla xafurun mooy jéggalaakoon bu mag bi rahimun mooy borom yërmande ju mag ji du noonu inna lazina ci topp um faali waaw mu ne inna lazina naka gaañe nga xam ne ah mu ne inna lazina naka gaañe nga xam ne yar moo na ñu ngay tuumaal njaalo almuhsanaati gor ya gor ya c'est très dangereux gis nit ànd ak jigéen sax non ca lañ dëkk ci la bokk ànd nañ waaye xamoo lu ñuy def xamoo lu ñuy def lu cay sa yoon buñ ci taxawoon dañ ci yàgg sax mu ne inna ladina naka gaaña nga xam ne yar yarmuuna ñooy tuumaal xam nga yar mooy sànni wa ma rammayta is rammayta walakin allaha ramma hmm? wa ma rammayta jamoo is ba nga diiree walakin li fi nekk ramma yàlla moo jam wa maa ramayta jamono is jamono ba nga xamee ni ramayta diir nga boobu diir lay firi mooy dàq walakin na li fi nekk allahu buur yàlla rama moo jam balaa ngaa jam dangay diir di waa kañ visé waa kañ mooy ba nga visé ci baati tubaab moo tax baat baat boo ko sànnee nit moom nga jam ko ñoo yem jam ko xeer wala jam ko paaka ñoo yem boo waxee nit baat bu ñaaw ñoo yem rey nga ko ba pare moo tax baat boobu la yàlla utilise fii la alladina inna alladina na ñi nga xam ne ñu ngay tuumaal moxsanaati gor yu fegu ya xaafilaati ñi nga xam ne seen yoon nekkul ci àddina maanaam dañ sàggan ci àddina bi nga xam ne seen yoon nekkul ci àddina toppatoo wuñ sax luy xew xaafilaatin maanaam anil fawaaxish ñoo xam ne kenn mënu leen duut baaraam yow ngay wër di leen tuumaal moo daloon alaaj Cerno Saydu Nuuru Cerno Bachiru moo ko nettali maa ngi ànd ak ay nit ba mu koy nettali moo tax ma ñeme ko nettali nee na dafa ñëw ci Amadou Cerno Cerno ah, ah, ah, Amadou bi ko jàngal moom Cerno Bachiru mu ne Cerno Seydou dafa ñëw ci moom ne ko diw ak diw ak diw ak diw ñeenti ñi mu ne ko ah, mu ne ko danaa wax yàlla mu te ak ñoom ndax ñi ñuy teg ci sama der bi bari na te ñooñu ndar lañ dëkk Cerno wax nañu turam seen tur nee na mu dëgg Cerno Amadou déglu ko ba mu wax ba pare mu ne ko ndax yaa gëm rasulullahi mu ne ko mukk mu ne ko li ñu waxuloon rasulullah danañ la ko wax mu ne mu ne ko cerno baal leen dañ laa xamut nee mu ne wax nga dëgg baal leen maa ñibbi <laughs> nee na génn ba ci yoon yi ko lu xew mu ne ko dama génn rek ñu ne ma ñeenti yëpp dee nañ mu ne ko waaw mu ne ko te man jéggale naa mu ne ko dangaa jéggale fekk yàlla jéggalewul mooy droit civil ah waaw da ngay baal nit nit bu sàccee sa alal nii nga yóbbu ko police ne baal naa ko police daf la naan wax jëf waaye ñun dañ koy garder ndax parti civile te yow baal nga ko ba pare jeex na dañ koy day police daf la naan jëf yow day yow day ku baax nga maam monsieur ku baax nga baal nga ko. waaye ñun dañ ko fi téye ndax partie civile am nañ ci droit bu ko defee foog ñu juger ko waaw droit dafa sew benn ñu avec sursis wala ñu condamné ko en ferme benn foog benn yooyu am ci moo tax yàlla dafa sew de inna ladina naka gaañ nga xam ne yar mu na ñu ngay tuumaal moxsanaati gor ya ci ñu ngay def lu bon xaafilaatin ci ña nga xam ne dañuy sàgganee ba sàgganee lu lu lu bon ba xamuñu ko ah xaafilaatil muuminaati te ñuy ay jigéen boole ci yu gëm yàlla yàlla ne ñi def lii lu ay nu rëbbeef nañ leen fi duniya ci àddina wala axirati ak ëllëg ca bés penc yàlla ne rëbb nañ leen wala hum ñeel na leen ëllëg bés penc azaabun moo xam ne adimun bu métti lay doon moom la Serigne Cheikh daan wax ni sawar làmmiñ jarul wax luñ lay duma mu ne sawar làmmiñ jaru ko waaw Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si nag jarul wax lay duma waaw jaru moo tax mu ne walahum ñel na leen ñoom ñi nga xam ne <clears throat> saaga gor yeeg tuumaal leen rek azabun mbugal moo xam ne alimun mu metti la yow ma bés ba nga xamee ne tashhadu daw na seede alayhim ci ñoom alsinatuhum seen làmmeñ ya nga bëgg a weddi yàlla ne dappet sa làmmeñ teg ko fa leen ni ko waxal mu naan maa ko waxoon maa ko waxoon maa ko waxoon maa ko waxoon ngay weddi muy lim lam daan wax tashhadu boo xam ne dana seede alayhim ci ñoom alsinatuhum seen làmmiñ ya waaye diyahum ak seen loxo ya nga bëgg a weddi loxo bi ne maa ko jëloon maa ko waxoon wa arjuluhum ak seen tànk ya nga bëgg a weddi tànk ne mukk maa fa demoon waxut dëgg maa fa demoon bañ koy ñëb maa waaxu woon loxo ne maa jëloon si téere ba suul làmmiñ ne maa waxoon ne ko njeberal ma ko làmmiñ seede loxo seede tànk seede xanaa loolu rek doyoon na làmmeñ rek doyoon na làmmeñ ak ni mu baree wax lu mu wax ñëpp gëm ko mu wax ba yeggal loxo ne kaay maa la dàq wax tey fam jaaroon yëpp lam jëloon te waru koo jël lam laaloon te waru koo laal yëpp loxo wax ko tànk fu mu doxoon te kenn xamu ko nga yot guddi dugg fa mu ne yàlla barab sàngam maa fa duggoon heure sàngam heure tel ngay yóbbu nit dóor ko ci tableau d'affichage bi mu affiché écran géant waaw yowmal am dafa am écran géant te Iblis mooy toog ca podium ba nag yor yettu safara di def xutba comme ni ko imaam yi di defee xutba danañ ci ñëw danaa leen wax xutba yi Iblis ba. am bés pënc yaqdumu qawmahu yowma fa awradahum nnaar bi sal wirdul mawrud waaw mawrud gis nga foofu wérd ñëw na <laughs> te bër yaa ngi wérd yow ah, yatam lay yor di ah. iblis iblis am doole yàllaa ko kattanal nag